alaa wahiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ginnaaw bi ñu santee yàlla subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci sangu-sang yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyooti ñëpp ñi nga xamante ni nii rek bu waxtu wi jotee ñu daal di teewlu fi nga xam ne moom mooy TP TV incha allahu rabbi ci suñu émission bu mag bi ñu naan nuurul huda incha allahu rabbi ñoo ngi leen di nuyoo bi gën ci nuyoo yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullah jàmm ak yërmande yàlla yal na ko yàlla sot ci kenn ku nekk ci ñun insha allahu rabbi yàlla mën na ko ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu loolu waaye nag dañ doon baaxoo suñu fekkee ne teew nañ fii ñu nuyu ñi nga xamante ni nii ñëpp ñu ngi tafoo safoo tele eh, bi waaye nag di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne mooy maane moom mu nga xam ne sama sët la nga xam ne toujours moom la ñuy jiital ci nuyoo yi waaye mu joxal ñu ko ñi nga xamanté ñepp ay sët lañu mané ñing koy nuyu bu baaxa baax di ñaan yalla subhanahu wa taala yal nako yalla defal jamm waye yel nako yalla defal wër fof lañuy jaar nak nuyu ka jaaba ak eh, ki nga xamanté ni moy mooy Boubacar Diallo ak Fatmata Diallo ak ki nga xamné moy maryama Fall waye tay ji nak dañu am spécial nuyu bo xamné dañ koy nuyu suñuy sët yo xamanté ni ñi eh, eh, dañu bok ci wujju yi ñoom itam bok ci wujju yi tey wujje bu baax a baax nag ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu sët boobu di awa doomu jaara mi nga xamante ni nii euh, maay maamam ndax ami euh, njaay mooy maamam waaye du nuyu bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër ga ñépp incha allahu rabbi awa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax incha allah waaye ñu ngi nuyu papa duñu fàtte ki nga xam ne mooy faali tey ja tey jii daal ci kër gi laa dugg incha allah di nuyu sama tuut tànk yooyu nga xamante ni nii nag du ma fàtte mukk ki nga xamante ni nii moom mooy maamu xale yi di sëñ Babacar sëñ Babacar mi nga xamante ni nii moom mooy maamu xale yi xal nee nañu xale yi gisuñu mbay waaye mbay lañu gëm ah kon nag ñuy nuyu maam Babacar bu baax a baax a baax waaye di nuyu yaayam di nuyu ñi ci kër gi ñëpp jaara ziar nañ la bu baax a baax a baax di ziar ñëpp ñi nga xamante ni nii ñi ngi safoo li nga xam ne moom mooy télé bi waaye duñu mës a fàtte awa ba awa ba duñ la fàtte waaye duñu fàtte yaay booy muy Nogoy saar incha allahu rabbi ndax li e, duuf ci nag wi lépp dafa dul xaj ci cin li moo tax dañu koy jéem a dogat buñ ko defee ci booli bi suñu suñu jukkee dara dugal ci cin li bu ëllëgee ñu daal di ciy dugalaat bu yàggee nag wi jeex waaye kenn mën mënuta nuyoondoo ñi nga xam ne ñépp ay soppe lañu nga xamante ni nii ay soppe yaa sayda lañu mënuñu mënuñu leen a nuyoo doo ci benn palaatoo waaye suñ ci nuyoo ñenn rek bu ko defee ñenn ñooñu dañu ci yóbbaale ñi nga xam ne ñoo ci des waaye ñoo ngi nuyu bu baax a baax a baax ki nga xamante ni nii moom mooy njaaya mi nga xam ne fi nga xam ne moom mooy ñàgg nga xam ne Binta Njaay moomu nga xam ne ku yàgg safoo yaasay daa la incha allahu rabbi waaye di feeñal safoom ci yaasay daa bu baax a baax Binta Njaay maa ngi lay ziar donte gëj nañoo gisante waaye nag eh, xel mi moom nekk ci eh, numte ci liñ naan xef yi moom nekk ci xol bi rek ko gën yal na yàlla jàppale jàppale mboolem jullit waaye di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla bu baax a baax waaye di ñepp ñi nga xamanteni ni nii ñëwoon nañu sokaabeg ci suñu dëj bobu nga xamanteni ni sama mère njaayami mo fi joggé ñoo lay ziar bu baaxa baax di la mastawu choono yi nga joggé jëlé Touba ak fenen fuñu ñu joggé ba ñew ci ba rek ñi ngi leen di mastawu choono di ñaan Yalla subhanahu wa taala yal na yàlla sama yaay joju nga xamanteni ni bari na ku kuy dégg nurul huda rek da ngay dégg turam ndax mère njaaya da daan yokku nit jom ndaysan yàlla moom fu mu soxlaa nit ki rek da koy jël moo tax mu ne kullu nafsin zaiqatul maut koo xam ne rek euh, da nga bëgg garabu dee da ngay fexe ba bañ a judd waaye ku judd rekk dinga génn àddina képp koo xamante ni nii am nga benn nokki ci àddina rek di dinga nga mës a dégg si ndégaale walla boog say bokk dégg ko ci yow ni ma ko baaxoo def ni ma ko baaxoo di wax mooy képp koo xam ne déggatul siggil ndigaale rek say mbokk a koy dégg parce que yow yaay dem ñu dikk ci say mbokk ne leen siggil ndigaale kon nag waa kër gi ñëpp ma koy e, may jiital ci li nga xamante ni nii mooy njaal mi paap mi nga xam ne moom mooy e, e, magu kër gi di ci teg badara di ci teg jigéen ñi ñoom ñëpp maa ngi leen di jaal sama yaay jooju waaye di sant yàlla bu baax a baax a baax ndax Euh, euh, koo xamante ni nii mag la woon waaye doon safoo bu baax a baax li nga xam ne moom mooy diine euh, kon bu fi jógee war nañoo beesal li nga xamante ni nii mooy ay ñaan ci moom di ñaan suñu borom subhanahu wa moom moo am yërmande yal na ko yàlla yërëm moom ak koo xam ne rek fekk na ko fa ak koo xam ne moom moo ko fa fekk rek yal na yàlla yërëm jullit ñépp incha allahu rabbi waaye ñu jëlati beneen thème boo xam ne bu yitteel jamono la bo xamanteni ni buñu wara euh, traité la parce que nit ñi xam li nga xamanteni ni mom moy mooy ngëm ñi ngi jël foi moy ngëm mom lañuy jël def ko tem ñu waxtane lan moy ngëm ku nekk am nga lo gëm mais ana lañ lan wara gën lool lañuy waxtane tay danaka jallon na fi ci ay jamono ñu defon ko fi waye doyut parce que ñu ngi koy réclamé waat di wax ne war nañoo seet ba xam ñun ni ñuy dundee nii est-ce que ngëm gi moom moo xaw a doy waar walla kon mu jaadu ñu dellu waat ci li nga xam ne la mooy ngëm ngëm nag lu xaw a doy waar la ndax ku nekk ak la nga gëm wax dëgg yàlla ku nekk ak la nga gëm li ñu war a gëm nag moom la ñu wa la ñu war a waxtaane ndax doomu aadama bi gëmoon mbir te yaakaaroon ne foofa la xëy na mu xam lan mooy ngëm mu bën a dellu si loolu la ñuy waxtaane tey muy ngëm ngëm nag ku ne am nga loo gëm comme ni ma ko waxe waaye li gën ci nit ñi li ñuy gëm wala li jaadu ci nit ñi ñu gëm ko walla li ñu war a gëm mooy yàlla suñu borom subhanahu wa mu gëm yàlla nag dafa dafa dafa xaw a doy waar ndax ku nekk nee nga yàlla mooy sa buur ku nekk nee nga yàlla nga gëm mais naka la ñuy gëmee yàlla subhaanahu wa taala suñu borom bi subhaanahu wa bari na foo xamante ni nii rek alerté nañu wooñu daa du ñu gëm leen ma am na fu baree baree bari foo xam ne danaan yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi ma gëm ba pare dooga digle mbaa mu tere kon amna ño xamne ne gëm nañ ko mais amna ño xamanteni ni gëm nañ ko ci lamiñ mais gëmuñu ko en tant que niñ ko wara gëmé kan moy suñu borom subhanahu wa taala ak kuy gëm yalla naka ko koy gëmé ak ngëm ci bopam lan moy ngëm suñ ko bëgg faram fàcce ci benn takusan dina xawa jafé lool waye nak ñu def ci suñu kéemtalaayul katan ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne fa zakir na ngeen di fatalante na ngeen di fataliku na ngeen di fatali sax yeen seen bop fa inna zikra naka naka fatalante wala fataliku wala fatale dina jariñ fa inna zikra tanfaul muminin dina jariñ ki nga xamne mom moy mom mo gem mu indeeti turu gem ya ayuha amanu yépp nak bu ci nek diglé la ak téré ki gëm ba paré lañu koy def ki gëmul ba ku gëmagul suñu borom subhanahu wa taala yalla dula sant dula dula, dula téré ndax ben yoon la mësa la leen mësa wo té la leen ca tégal moy ya kafaru ñi nga xamné wéddi né lank ngeen leen bu leen bu leen bu leen jayu bu leen jayu fii ci suuf ndax su fekkee ne tey danga nekk ci suuf si ba pare ne borom suuf si gëmuma ko moo tax yàlla mu ne leen bu leen ja jayu de kon benn yoon la leen tudd ba pare ne leen su ngeen dellusee dinaa leen fay ba pare ki gëm mu ne ko soo dellusee dinaa la fay ñu jàngoon ci suñu téere bu ndaw boobu ñu naan laxdar yu naka la ñuy gëmee ndax kooku dafa ne awalu ma yajibu alal mukallafi tasqiixu imaanihi li gën li nit ki nga xam ne muskallaf na di def li ko war li ko njëkk a war ci bi mu muskallafee rek mooy mu vérifier lan la gëm tasqiixu imaanihi mu seet lan la gëm moom fas fasam lan la ku ne ak la nga fas dama fas ci sama xol ne man ab taalibe laa taalibe laa dama fas yéene nekk ak ab taalibe nekk ci ron sëriñ bu ñu naan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab taalibe laa dafa am lu ma war a jàng am naa sëriñ bu ko mate muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ab taalibe la dama war a roy kan laa war a roy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa gisuñu ko fekkewuñu jamonoom dundandoowuñu ak moom waaye dafa jàngale woon ba fi yàlla mu ne alquran bii nga xam ne moom laa jox yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam man maa ko wàccee inna nazzalna alqur'ana wa inna la xaafizun man maa wàccee alquran waaye man maa koy wattu du bënn du fëq du maxe kenn mënu koo yàq ci kaw suuf te kenn mënu ko xam nga tey bés bu nekk mën ngaa xëy rek daal di jël sab saar rek daal di koy jàng waaye est-ce que journal bi xewoon daaw mën ngaa taxaw fii di ko réciter nit ñi fàtte nga sax la ca xewoon moo tax yàlla mu ne inna nazzalna alqur'ana waaye eh, inna lahu la xaafizun man maa koy wattul sama bopp te lu yàlla wattu mu ñoŋ lan lañu war a gëm yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla bi mu bëggee ñu gëm ko yàlla bi mu bëggee ñun ñu defaru yàlla bi mu bëggee wane ne moom mooy yàlla alwaahid moom mooy kenn alqaxaar mooy ki not ci li nga xamante ni nii mooy nguuram dafa ne na ngeen topp kii nga xam ne mooy Seydina Muhammad wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen ko toppee di ngeen jóg moom ndaw loolu nga xam ne en tout cas ñun suñu mag ñépp ci moom lañu katamu jël seeni ndëggu teg ko fa mu tegoon ay tànkam am ci kenn koo nga xamante ni nii danga dem ca këram fekk woo fa kàggu kàggu goo xamante ni nii ma nga ca def li nga xam ne mooy ay téere alquran même buñ ko donnewul newul alal itam danañu donn ci moom ay téere moom loolu ñun moom la ñu gëm parce que moom lañu gis suñu mag ñi di ko def bari na ci ñoom ñoo xam ne kenn donnul ci ñoom xaalis waaye ay téere lañuy ñuy donn ci ñoom kon ñooña wane nañu yoon ndax gis nga kooku nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam topp ko dafa jaadu ndax yàlla moo ñu ko joxoñ yàlla moo ñu ko joxoñ inna arsalnaaka shaahidan wa mubassiran wa nazira yàlla moo ñu ko joxoñ mu ne dama laa yónni inna arsalnaaka shaahidan ngay ngay seede wa mubassiran ngay bégle wa nazira ngay ngay xuppe wa daa'iyan ngay woote bi iznihi wa wa sirajan munira ngay woote jëme ci sa boroom wa sirajan ab làmp nga ci ñoom kat munira boo xam ne dafa leer nañ kon suñu boroom subhanahu wa moom moo ñu ko joxoñ mu ne topp leen ko su ngeen ko topé di ngeen jup ndax critère yi ma def ci mom motax ma jox ko ne ko na nga woté na nga woté ci njubu yalla gi nga xamanteni ni mom la wacc ci yow doona lamp doona lumière ci ñi nga xamanteni ni ñom ñoy ñi nga xamne ñoo gëm wa ila allah bi iznihi wa sirajan munira del wote ci njubu gi yalla gi dee ci woote am na feneen foo xam ne nee na ko bil xikmati na leen woo ci li nga xamante ni mooy sagesse nga na leen woo ci li nga xam ne moom mooy xereñ na leen woo ci li nga xamante ni nii moom mooy nooy na nga leen woo ci li nga xamante ni nii moom mooy laa biir ak ubbiku loolu lépp suñu yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla defal na ko ko ba tax wooteem boobu mën a ñëw ba ñun ñu di ci jot lan lañu war a gëm ak kan lañu war a gëm ak nan lañu war a gëmee ki ñu war a gëm mooy ki nga xam ne moom moo sàkk te bi muy sàkk waxul kenn mu dimbalee ko leen suñu borom subhanahu wa taala am na foo xam ne mi ngi naan moom moo bind asamaan si asamaan yi juróom-ñaar ak suuf te nag sonnul ci nga bi nga xamante ni nii ca la ko doon sàkke mu defal ñu suuf sii nga xam ne ci lañuy dox li nga xam ne moom mooy ay yoon mu defal ñu tamit mbay mi nga xam ne moom lañuy bay fii ci suuf si waaye mu defal ñu tamit ndox moo xamante ni nii moom moo koy wàcce ñun ñu di ko jariñoo defe naa ne buur bu mel noonu bi ñu yàlla sàkkee di indi ay buur ci suñu kaw ba nëgë ni gisuñu buur boo xam ne moom moo ñuy sàkkal ay yoon bi maanaam buur dafay fekk yoon war ko defaraat waaye buur bu sàkk ay yoon amu fi buur bu xotti géej mu ne màwwu ñu koy jariñoo mu tegal ñu ci alfulka gaal yi nga xamante ni nii tajir yi mu ngi daw ci moom bi izni rabbihi ci suñu kattanu borom amul benn buur boo xam ne nee na moom moo fi defar géej gii tey walla dex gi tey walla siyaan moo gën a ndaw ban buur moo la koy defal xanaa kay da ko fiy fekk war koo yàkkali war koo defaraat doomu aadama yi war koo jël di ko jariñoo waaye moom da nga fekk ressource yépp teew suñu borom subhanahu wa taala def ko ngir doomu adama yi nga xamanteni ni ñom la sak tek leen ci kaw suuf muy lu doy war lo xamanteni ni subhanahu wa taala da koy wax waye dañuy delloosi ci ci bopam ndax neena inna fi khalqis samawati wal ard waxtilaafi llayli wannahaar la ayatin waaye li ulil albaab allazina ñooñee nga xamanteni ni yaskuruuna allaha dañuy tudd seen borom qiyaaman bu ñu jógee taxaw seen xel ci seen borom lay nekk wa qu'udan bu ñu toogee seen xel ci seen boroom lay nekk wa ala junubihim suñu tegee seen mbagg mi itam seen xel ci seen boroom lay nekk wa yatafakkaruuna fi xalqi fi xalqillaahi ñoom dañuy méditer dañuy xalaat ci ni yàlla bindee waye résultat bañ cey jëlé moy rabbana yow sama borom ma khalaqta haza batina xamna ni li nga bind caaxaan ak neen taxul nga bind ko subhanaka sel ñeel na la waqina nang ma fegal azaban nari li nga xamanteni ni mom moy mooy mbugalum safara ñooñu ñoom ñom ñoy borom xel yi motax yalla mu tuddé len ulul albab ñi nga xamné seeni xel day nacc kan lañu wara gëm ak naka lañ ko wara gëmé ak kan nan la ñu war a gëmee suñu borom subhanahu wa taala est-ce que dañ koy gën ci suñu bànneexi bakkan rek moom ci boppam moo ne ara ayta xanaa gisuloo man taxasa kii nga xam ne dafa jël ilaahahu eh, bakkanam ilaahahu ay bànneexam xawaahu mu daal di koy fal buur mu nekk yàlla wa adallahu ko loola daal koy daal koy réeral an sabili ci sama li nga xam ne mooy sama yoon ndax képp koo jël def ko palaasu yàlla kooku da lay réeral def ko palaasu yàlla kooka da la la réeral ndax yàlla moom mooy borom bi nga xamante ni nii dara ci àdduna mënuta faddu ci moom koo xam ne laa taqasuhu sinatun wala naw ki nga xam ne gëmmentu du ko dal te du nelaw kooku mooy suñu borom subhanahu wa suñu borom boobu nag lañu war a gëm ak naka lañ koo war a gëmee da xëy rek daldi di ne man yàlla laa gëm waaye yàlla teg fi ay sart yàlla teg fi ay ay jumtuwaay yoo xamante ni nii dinañ koo war a mën a gëmee noona nit ñi mën koo xam suñu borom subhanahu wa taala reconnaître li nga xam ne mooy sa gëm nga ne ko fi ñukk daat ne waaye man sama xol bi dafa rafet te yàlla xol lay àtte ñun mënuñu xam ndax yàlla lu mu def ci xolu nit parce que nit dafa lëndëm waaye suñu borom subhanahu wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo gëm mooy ñan yàlla nee na minal muminina am na ci julli ñi jullit ñi ña nga xam ne rijaalun ay góor lañu ahadu dañoo dëggal dañoo dëggal li nga xam ne maa aaqadallaahi ni nga xam ne moom la ñu dige woon ak seen borom am na ci ñoo xam ne minhum man qadaa naq naqbahu wa minhum man yantasir noona lañuy ñuy gëmee suñu borom subhanahu wa taala ñu indi ci benn xissa boo xamante ni nii suñu borom subhanahu wa taala moom moo ñu koy nettali gaa ñi dañoo ñëw ci yeneen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko mbir mii de soo ñu ci waxee dara ñu gëm la mu ne mbir moomu man la mu ne am na ku fi jaaroon àndoon feeg yonent yàlla Muusa ñu naan ko Xadir boo ñu waxee ay mbiram dinañ la gëm am na ku fi jaaroon doon ak penku boo ñu waxee ñu naan ko Zulqarnayni soo ñu ko waxee ay mbiram dinañ la gëm am na ñu fi jaaroon doon ay gone ñu tuddee leen asxaabul kahfi soo ñu waxee seeni mbir danañ la gëm yonent bi daan ne dem leen bu subaa dinaa leen ko wax waaye mu fàttee wax insha allah jibril wàccut ñëwut ñeent fukki fan yonent bi di xaar jibril jibril ñëwul ñu naan ko yàllam ji bàyyi na ko yàllam ji bañ na ko ah ba jibril ñoom mu daan ne ko jibril naka la nit di mën a defee xaritam nii jibril na ko ñun suñu boroom a ñuy yabal rek ndax ñu ñëw wax waaye du ñu ñëw suñu coobaree ba suñu coobaree boobu xoola ku toll ne yonent yàlla Muhammad grade yi mu ràngoo suñu ne eh, Muhammad ñépp jël seeni bopp wuur ko ci suuf mbaa ñii di mbëkk ay poto koo wax mu ne la sallallahu alayhi wa sallam gis nga benn mbir la fàtte Moy, insha allah yalla tek ko nattu bo xamanteni ni tok na ñen fukki gudd ñen fukki fan di xaar jibril jibril ñewul motaxit tax bi mu ñewé mu ne ko nahnu naqussu alayka ahsanal xasas mbir moo ñu mës laaj dinañ la ca wax ngeen ga rafeti wax mbir dinañ la ca wax ngeen ga rafeti wax yeneeni mbir itam dinañ la ca wax ngën gaa rafeti wax waaye sa boroom nee na bul waxati menn mbir ne dinaa ko def xadan suba te tegoo ci insha allah gis nga mbir yi yàlla moom moo koy dogal mbir yi ci loxo yi yàlla la nekk suñu borom boobu subhanahu wa taala innahu mafatixul xaybi laa ya'lamuhu illa huwa moom moomu moo am caabi kumpa yi suñu borom boobu subhanahu wa taala mafatixul xayb ci loxoom la nekk kenn xamul li xew suba nee na la wa tadri nafsun bi ayi ardin tamut wa ma tadri nafsun maza takzibu hadan wa tadri nafsun bi ayi ardin tamut doomu aadama bi lii xew suba li ngay yendoo li ngay xëyee suba xamuloo ko ma tadri nafsun maaza takzibu xasdan suba li nga war a def xamalu xamoogoo ko mën na maa xëy ne man kat bu subaa damay xëy def nàngam ak nàngam ci guddi gi yàlla indi programme boo xam ne man la ma programme woon day dajjiku ndax programme yàlla mooy jàll kookoy buur bi nga xam ne moom la war a jaamu koku moy buur bi nga xamanteni ni mom lañu la gëm gis nga lakh dari yu bi mu nee ñu ma yajibu alal mukallafi tasqiixu imanihi waye dafa ne summa ma'rifatu, ma yusliqu bihi fard aynihi neena bu fekke ne doomu adama bi da nga da nga juddu rek yalla dogal la nga juddu ak ni doomu adama yi yalla jaar ak ñom bañu bañu nek nit nga xam ne dafay jël temps fi jàlla jaar ak yow ba nga nekk nit waaye nga nekk liir nekk ci ay laytaal yàlla ne la lépp loo xamante ni nii farata la ma teg ko say waajur tegaguma la ko yow dafaguma ci yaw am xel dama ne nañuy wuti di ñëw di la lexal yow lexalagoo kenn dañ lay lexal amagoo bàkkaar amagoo tiyaaba doonagoo dara ñu def la ci ay laytaay waaye yàlla mu ne nañ la teral la xadd karam naa bani aadam fa mu jógee sax dafa sori ndax doomu aadama bi avant muy nekk doomu aadama la ko yàlla teraloo def ko ci ndigg bi nga xam ne mooy ndiggal baayam mu war ci li nga xam ne mooy ndiggal baayam doomu aadama mosul suufe waaye mu indi ko ci ruxumu yaayam mu nekk ci ruxumu yaayam waaye dafa war ci li nga xam ne mooy ruxumu yaayam doomu aadama yàlla musu koo suufeel xam nga kan mooy ki nga xam ne moo suufee yàlla mu ne ki nga xam ne moo suufe moom moo mujj suufeel boppam ndax yàlla ba mu ba mu leen jëlee yéen ñépp ci fikra la leen la la leen def mooy ñépp dañoo sell yàlla mu ne su ma radat naahu doomu aadama bi delloo boppam asfala saafiliin gën ga gën ga suufe fo nga xamanteni ni mom moy mooy doomu adama bu mom mo bëgga a fofu bopam mais yalla mom bi mu ad bi doomu adama bi sosogul lako euh, euh, teddal ndax mënon nako def leneen luddul doomu adama waye mu ko bëggee teral lako ko boole ci doomu adama yi def ko muy insaan moy nit yalla mu ne wala qad karam bani adam wa hamalnahum waxamal hamalnaahu fil barri wal baxri wara bahri wa razaqnaakum min at-tayyibaati man maa ko teral maa ko warloo ci géej gi ak jéeri ji yépp doomu aadama man maa ko ci warloo dangay am ab saret di ko dawal yaa ko moom danga cee war danga am vélo di ko dawal yaa moom da cee war da dugg ci kaar yi nekkoo ci mbedd mi di fëlañ fëlañi doxuloo comme ni yi di doxe waaye ne woo mbàpp ni des jasit yi mel yàlla moo la yëkkati moo la teral yàlla moom moo la mel loo meloo wi nga xam ne eh, nii nga mel tey moo tax ma mu ne maa garrakum bi rabbikul bi rabbikal karim maa garraka bi rabbikal karim lan moo dox sa digganteeg sa borom bi nga xam ne moo tedd ci teddaangeem googu la la terale maa xarraka bi rabbikal karim allazi xalaxaka fa sawaaka fa xad bi ay suuratin maa saa rakabak maa xarraka bi rabbikal karim lan moo dox sa diggante ak sa borom bi nga xam ne fii yëpp moo fi jaar ak yow kan nga war a gëm ku dul moom ak ñun lan lan war a gëm ku dul suñu borom subhanahu wa taala en tout cas fii la jaar ak ñun doono goo woon dara mu def la ngay dara hal ata alal insaanu xiinun min a dahri lam yakun say an maskura nekkoo dara dara dara loo xam ne kenn mën na laa tudd bi nga sosoogul nekkagoo ci ay jamono yu néew yi nekk sa ginnaaw kenn mënu laa tudd doonagoo dara xamagoo dara yàlla moo xamal la amal la inna xalaqna na insana min nutfatin amsaajin nabtalihi فجعلناه سميعا بصيرا واي من ان هديناه سبيلا اما ساكرا واما كفور wa imma kafur dama laa teg ci ay yoon bu la neexee nga sant ma gërëm ma bu la neexee nga top ci yoon wi ma la teg wa i waye wa imma kafur bu la neexee nga weddi ma man mi nga xamanteni ni man may sa borom attention waye nak sàcc bu dul raw jarta yàqi nelaw inna atadna lil kafirina salasila وأغلالا وصغيرا إن الأبرار يشربون من كحس كان مزاجه كافورا كون بوكو bokk ci al abraar yooyu dafa gënoon a dal ngay bokk ci ñinga xamanteni ni inna atadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sagir dafa dafa dafa sax tit lo wax dafa sax tit lo bok kurel googu bokk ci erreur la yàlla nee na man maa leen waajal inna atadna lil kafirin maa leen waajal salaasila wa aglalan wa saxiir li nga xamante ni nii moom mooy ay jéng ay jéng ak ki buum yoo xam ne moom lañ leen takke waaye li ci gën a garaaw mooy safara suñ naan saxiir inna atadna lil kafirina salaasila wa aglalan wa saxiira mu mel ni dafa xaw a doy waar ci nga jël ñaari kuréel yooyu di leen boole di leen yemale dafa xaw a doy waar ci nga jël ñaari kuréel yooyu nga jël ci kuréel goo xam ne yàlla moo wax ne lii laa la waajal nga ne moom moo gën ki nga xam ne mooy al abrar bi nga xamante ni nii dafa jëloon nosam daal di koy jox boromam subhanahu wa taala ne ko jaarale ma fa la neex ñaar yooyu bokkul yemul لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا القر ولا ولا الذل ولا القر بقول يمل يلا موني نجاتار بي مونتا يمكي لامباتو واي لا يستوي الأعمى والبصير نجاتار أكي لامباتو منو يم ولا الظلمات نينا أي لندم مونتا يمك نور موي azillu moom mënta yemal ak xaruur mu ne hal yastawiyaani masala est-ce que ñooña dinañu yem ay masala seeni misaal du benn toujours yàlla bu day indi mbir ngir nga mën caa xame leen suñu baay Moustapha Gueye da doon wax naan nee na kéwél bi dafa ànd ak gaynde gi ànd ak li nga xamante ni nii moom mooy bukki bi déedéet segg bi dafa ànd ak bukki bi ànd ak gaynde gi ñu daldi fàdd benn kéwél indi ko indil ko ki nga xam ne moom mooy seefu àll bi moom mooy gaynde mu daal ne ko bukki yow kiyal bukki yow séddale ko bukki def ko ñetti cër yu yem képp ne bii gaynde bii bukki buy segg gaynde ne ko farit nee na mu daal di bopp bi daal di dagg tege ne mu daal ne ko segg yow yemal ki séddaleel nee na mu jël lépp daal di ko koy tegal jël yel ya da teg ne mu daal ne ko lii nag mu ne ko seddale naa ba pare mu ne ko ah foo jàng seddale bi mu ne ko ci bopp Wajale nip nit war, waar dangay waaroo ci say morom bala ngay waar say morom ndax su fekkul won jëf jooja am ci kanamam kon la dal kele mënoon nako dal motax yalla ne la yastawil ama wal basir njàccaar mi ak ki lambatu munuñu and munuñu tollo ndax li njàccaar di gis ki lambatu du ko gis ñuy waxtane tay kan mooy buur ak nan lañ koy gëme ak lan mooy ngëm yàlla ñu toll ci jamono joo xam ne jamono ju doy waar la dama jamono joo xamante ni nii kenn ku ci nekk nee nga man de jullit laa waaye ana cëru yàlla ci say jëf walla ci say wax walla ni nga mel ñu nekk ci jamono joo xamante ni nii yàq bari na ci kaw suuf te kat suñu borom subhanahu wa taala waxoon na ko zahara al fasada fil barri wal bahri bi maa kasabat ay dinnaas nee na dinañ toll jamono joo xamante ni nii dana bari ay ñaaw téef àdduna dana yàqu li nga xamante ni ni mooy kaw suuf si dina yàqu way biir géej gi tamit dana yàqu mun ne na lan moo ko waral bi maa kasabat li nga xam ne mooy suñu ngóobeetu jëf li nga xam ne moom la ñuy lijjanti lépp mooy yàq suuf si ak yàq eh, li nga xamante ni nii moom mooy géej gi nga xool tey fuñ ci toll ñu fan lañ ci toll parce que waxi yàlla da dañ waxi yàlla da dañ yàlla dafa nañu gëm leen ma man mi nga xam ne man may buur maa leen sàkk foo xamante ni nii kenn munu len fa fekk di len sak ma sak len defar len wacc len fi ci kaw suuf bu ko defé ngeen di wara set li nga xamne ne samay téré bayiko li nga xamne moy samay ndenkané ngeen di ci def seen talayal kàttan ñu nako yalla yow bur bu de nga bur nga bo xamanteni ni li nga ñu wax ci julli mën nañu koo def li nga ñu wax ci woor mën nañu koo def waaye nag dafa am foo xam ne yàlla yow danga fa war a yem yàlla mu daan ne ñu loolu mënul nekk ndax ki bind nit soo ki génn soo ko génnee ci mbir mi mbir yi dootu dox mbir yépp ci suñu borom subhanahu wa taala la jóge waaye terminus bi tamit mooy suñu borom subhanahu wa taala walillahi turjaul umur yàlla ci mbir yépp ca moom la jëm xalaqal insaan moom moo bind nit allamahul bayaan mu xamal ko lu mu xamul woon léegi yow bi mu la xamalee li nga xam ne xamoo ko woon lépp lu nekk ci àdduna nga xam ne yàlla daf koo codé teg ko mu may la xel ba nga dégot ba nga tegote lenn ci li nga xam ne daf koo codé woon teg ko nga daal ne lii man la waaye du suñu borom subhanahu wa taala te yàlla mu ne woon ragal leen ma rek su ngeen ma ragalee ma xamal leen yu baree baree bari wattaqullaha wa yuallimuhumullah da ngeen di ragal yàlla yàlla xamal leen li nga xam ne moom mooy xam-xamam ndax suñu borom subhanahu wa taala nee na xam-xamu borom bi subhaanahu wa bu fekkoon ne li ñu am ci ay garab yépp dañoo ko defoon ay xalima wal bahru yamuddu ñu jël géej yépp def ko ay daax ngir bind xam-xamu suñu borom bi subhaanahu wa taala yàlla nee na duñu ko mën yàlla nee na duñ ko àttan yàlla nee na duñ ko peeg kooku moy suñu borom subhanahu wa taala mo sel mo kawe mo ñu def ñu nit mo ñu teral ku fi teddadi rek yow yaa teddadil sa bop waye yalla dafa teral doomu adam su ko neexon tay ku ko weddi rek mu jëlé fi suñu borom bobu subhanahu wa taala xamalé nanu nu ne bopam ndax dafa né ta'rifuni qabla an ta'buduni xam leen ma dok ma fa illam ta'rifuni bu ngeen ma xamul fa kay ta'buduni naka ngeen may jamo naka nga meuna a suñu borom subhanahu wa taala te xamuloo amna am jenn way jo xamne dañ ko jox suñu rew mi ne ko lepp luy sañ-sañ jox nañ lako lepp luy mën-mën ci suñu rew mi jox nañ lako soko xamalul dara ba xey sangu ba set sol sa mbubb dem ba ca buntu pale ba ne mom ngay set doo ko gis waxantuma lak yalla suñu borom subhanahu wa taala naka nga koy jaamoo te xamuloo ko ak naka ngay jaamoo te da làmbatu li nga xamante ni nii mooy jaamu gi nga xam ne moom ngay jaamu yàlla naka la ñuy gëmee suñu borom subhanahu wa taala pourtant daf fee wàcce ay téere wàcce fi ay yonent daan na yonent yi ñu fi jógee dinaa fi bàyyi almujaddid ño xamne ñom ñoy leralat mbiru yonent yoyu xarnu bop xarnu bu ne dina fi tek ko xamanteni ni na ngeen ko di deglu ndax dama fe bayyi sama yonent bi waye dama ne bi muy dem amna na lum fi bayyi da ngeen di moy bu baax ci téré yalla bi mom moy li nga xamne mom moy li yalla faratal ci yeen waye bu len fatte sunnati sama li nga xamne moy sama sunna allah wa sunnat yi bàyyil naa leen téere yàlla bi ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam même bu dee xale bu ndaw yàlla dina ko fi bàyyi muy wax lan li nga xamante ni nii moo nekkoon ci téere suñu borom bi subhanahu wa taala gisuloo suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci téereem bi daan ne suñu yonent boobu kat ab euh, doomu aadama daa ñëw da ne ko man kat dama la bëgg gëm waaye man dama am beneen xol boo xam ne day sikki sàkk mu daan ne maa kaana li rajulin nekkul ci kenn koo xamante ni nii yàlla dina ko defal xal bay ni ñaari xol fii jaw fi ci ci ci ci ci ci ci benn jëmm yàlla du ci def ñaari xol dama gëm ak dama weddi yow kay da ngay gëm rekk mbaa nga weddi sa làmmiñ wi nag di la gëmloo di di gëmloo nit ñi ne man dama gëm waaye soo jëfee ñu xam ne gëmuloo soo jëfee rek ñu xam ne gëm parce que jëf bii daf lay wor li nga gëm loolu la jëf bi di génne mu doy waar lool ñu dund ci société bu doy waar boo xam ne li ñu gëm ak li ñuy wax du benn société boo xam ne li muy askanale suñu borom subhanahu wa taala dafa xawa doy war motax duñu mëna jël nit jox ko valeur mu am nit mënul am valeur ci ñom parce que yalla mi nga xamne ne mo bind mo ne dama am ak yeen ben rendez-vous bo xamanteni ni bu doy war la ndax dama leena bind ngeen di sant kudul man dama leen a bind ngeen di jaamu ku man ma di leen wërsëgal ngeen di sant keneen ku dul man moo tax mu ne ana wal jinn wal ins fii nabain azim ñu tase ci rendez boo xamante ni nii bu doy waar la danañu lijjanti ji suñuy mbir ndax lan moo tax ma bind ñuy jaamu ku dul man defe nga ne ceeb ba jóge siin mbaa mu jóge Pakistan wala mu jóge Thaïlande ceeb ba nga xamante ni nii ña ngi ko fay ña ngi ko baye fu kenn xamul suñu borom subhanahu wa taala mu daal jël jiwu bi teg ko ci ay loxoy nit nit ña jiw ji ko mu daldi di wàcce am ndoxam wàcce ndoxam ceeb ba ñor ñu góobe ko ca dëkk boo xam ne yow soo ca doon dox man ngaa dee ci diggante bi ndax doo àgg yàlla def ko ci ay gaal ak bato ay doomi aadama di ko conduire gaal ak bato nga xam ne yàlla ko ne tegg ci kaw euh, géej gi nga xamante ni nii yow buñ la ci yo dugaloon en tant que yow da ngay diig xoolal lu toll ni bato yàlla def ci ay toni ceeb def ci ay oto ca biir def ci lu ne yàlla nga teg ko ci géej gi bi maa yan fa un ndax ngay wuti loo xam ne da nit da koy jariñoo yàlla bàyyi yàlla bàyyi bato bi mu taxaw mu toog ci kaw ndox mi di daw ngir yërmande suñu borom subhanahu wa xoola bato kay xanaa moo gën a diis nit te nit boo koy sànni ci géej gi muy diig te booba teer ci ba ci ci suñu gaal suñu suñu poor yi dokeer ca li dokoor ya liggéey ca ñi nga xamante ni nii ñoo yor seeni camion liggéey ca grossiste bi jënd ca yow détaillant bi grossiste ba jënd ko jaay la ko nga dem yóbbu ko ca bitig man Aysatu Wele ma jënd ci benn kilo togg ko ba mu ñor te gis nga bi ma koy togg yàlla moom moo yenkewal samam xel ma mën a boole jën ak ni mu xasawe ak ni mu siccee diwlin ak na mu siccee ma boole koo ceeb bi ak ni mu woowee koŋ yàlla nàmmal ma sama xel ma mën koo defar ceebu jën ma togg ko ba mu ñor teg ko ci sama ëtt lekk ci ba suur keneen ka ca yàlla def wërsëgam mu lekk ci ba suur ma daa di naan sama guuxub ndox daa di jaaxaan di woo keneen yàlla mu ne lan moo tax ma di leen wërsëgal ngeen di sant keneen ku dul moo tax mu ne i'malu ala daawuda sukura waa kër daawuda yéen li ngeen di liggéey sant leen ma ci waaye wa qalilun min ibadiya sukur nee na ñu néew ci samay jaam ñooy nga xam ne ay cantaakun la ci kaw suuf te kat gis nga iblis ba muy waxanteeg suñu borom dana dafa ne ko dinaa leen jaare ndeyjoor jaare leen càmmoñ man dinaa leen jaare fépp dinaa fexe fexe fexe ba bu fekke ne yaangi fanga aduna bi di di di di ko fi jele di nga fekk ne ñom khalilan ñu neew ci ñom ñoy nek ay cantaaku do len fekk mukk ñu nek ñi nga xamne dañ lay sant yow suñu borom subhanahu wa taala ba pare ñun ñu ñew rek daal di koy deggal nak daal di koy deggal. lepp lu yalla am askale nan ko keneen ku dul mom subhanahu wa taala ba da nga ciy gis koo xam ne danaan yàlla mooy sama buur damay jéem sama li yàlla di wax ma di ko def dañu koy jël def ko estratres kii warta jëflante sax ak ay nit muy mbir mu doy waar a doy waar moo xamante ni nii dafa doy waar ci jamono ji nga xam ne ci la ñuy dund waaye nag bul kenn koo xamante ni da nga ne yàlla mooy suñu buur lenn di la jaaxal ci kaw suuf ndax yàlla dafa ne woon bada al islaamu xariba njëlbeenu islaam islaam dafa tumuranke lool waaye fa sa yaxoodu xariba dina islaam dina demaat ba li nga xamante ni nii mooy tumurankeem ba tax ñoñi li nga xamante ni nii moom mooy diine ñi nga xam ne dañuy wax diine yem ca ñooña danañu amé problème waye bu len tiit touba lil ghuraba neena na texe ñeel na ñi nga xam ne dañoo ànd ak diine ranké and ak mom kan lañu war gëm yalla bur bi subhanahu wa taala mi nga xamanteni ni mom mom mo sak kawnu bi mu sak ay mbindeef def leen ci bir dunia bi nga xamanteni ni fi lañu nek waye dafa ne dunia fay jeex darun liman la laa aduna lahu àdduna bi kat keur la ci keur ci ko xamanteni ni amul keur darun liman la laa lahu ku muso da ngay wuti keur geneen gudul dul gi ndax da fay jeex fay rap aduna da fay jeex suñu borom subhanahu wa taala dina donn lépp lu nekk fii ci kaw suuf gis nga bala ngaa xam ne moom moo fi dara demal liggéey ba am ñaar fukki junni rek nga ne ñaari ñaari junni yi maa ko moom penc mi ne la waaw nga ne leen lu maa ko moom ñu ne la waaw nga ne maa ngi nii di ko xotti mbaa ma di ko taal nga xool tamadu la uppi buum ci kaso bi lañ lay teg mbaa ñu def la loo xam ne lu lu metti la xaalis kenn moomu ko ñépp ko moom fi nit amu fi dara lu dul jëf yi nga xamanteni ni mom ngay jëf wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah lépp loo xamante ni liggey ngeen ko ci li nga xamanteni ni mom moy lu bax tajiduhu di ngeen ko fekk mu ne tegg ci so borom di la xaar wa bu fekke ne lu bon la kon itam di nga ko fekk ndax yàlla du tooñ ay jaamam lépp lu ñu liggéey fa lañ koy fekk mooy lu baax muy lu bon ba pare mu ne la lu baax du raaf du dëñ du ràpp def ko at moo ko mën di defe fañ la ko dencal duñu ko duñ ci dindi lenn lenn lenn waaye lu bon mën nañ koo watte yubaddilu yubaddilu laaha sayyi'aatihim xasanaat yàlla mën naa jël seen yu bon yooyu mu daldi leen koy watteel loo xamante ni nii yu baax la ci kaw la nga nangoo jël sa nos gi jox ko ko tuub ne yàlla la ma doon def dara baaxu ci maa ko bàyyi bés ni ki tey jarul sax di fësal bi nga bàyyee def lu bon rek yàlla xam na ne bàyyi nga ko te loolu rek moom mooy tuub loolu rekk mooy tuub lépp loo doon man di def te neexul suñu borom subhaanahu wa bi nga ko bàyyee rek tuub nga ci wa surutu tawbati ñu dellu si waat li nga xam ne mooy lax dariw fa wa surutu tawbati te attey tuub mooy sarti tuub ak nadamu mooy rëccu rek alaamaa faata ci li nga xam ne moom nga doon def ci li nga xamante ni nii nekkul woon loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala bëgg na ko wa niyatu nga yéene an laa lan laa yaxuuda du delluwaat bi zan bin ci li nga xamante ni nii moom mooy bàkkaar bàkkaar bi nga def ba tuub ko mooy bàkkaar bi nga xam ne moom nga rëccu te xanaa nit du rëccu mbir ma ba ba pare di ca dem fii ma baqiya min umrihi doo delluwaat mukk ci bàkkaar bu mel ni ba ma defoon ba tuub ko ndax loo rëccu dootoo ci dem mu mel ni am nañu buur bu mat buur ñu am mu am ci yërmande lu yaatoo yaatoo yaatu ba pare saa yu xëyee di ñu woo ci yërmandeem googu ndax mu mën ñoo yërëm ndax lii ñu yaakaar ne ci la ñuy sax nekkul loo xamante ni nii luy sax la te ku dund ci at mi xam nga ne àdduna saxul ndax ñaata nit la fi yàlla jële yoo xam ne ñun dañ doon dundandoog moom te xam leen ku dund ci réew mi ci at mi ba gis perte yi ñu am ci li nga xamante ni nii ay nit ñu doon dundaloo dundandoo ñu nekkoon fii ak ñun nga xam ne àdduna saxul li jël ñooñu du la fi ba parce que ñooñu amuñu genn ñàkk fayda gu tax ñu dem waaye ñun itam suñu am fullaak suñu am fayda taxuñu fee toog kenn ci ñun yorul wéram mbaa mu yor wërsëgam mbaa mu yor lenn ci moom lépp suñu borom subhanahu wa taala moo ko yor di ko sottandikoo kon na ko nu ko neex moo tax mu ne anfiqu na ngeen dundale anfiqu na ngeen joxe ci li nga xam ne man maa ko wuutal maa ko jële ci ñeneen teg ko ci seeni loxo yéen mustaxlifiina fii dañ dañ leen ci wuutal yéen am na ñeneen ñu yoroon mbir yi loo fi yor tey rek doomu aadama yoroon na lu ko ëpp lu ko duubal gënoon laa mën a ragal yàlla wala bu dee kàccoor nga moo la gënoon a kàccoor te jóge na fi ana ki fiy jële kooku xayyun laa yamuut mooy ki dund te nga xam ne doo du dee mukk ci àddina kooku mooy buuru ñépp moom moo amal lépp ku fi am di balballu ci kattanam nga ame ku fi am di joxe walla ku fi am ya xam ne ci suñu borom la jóge nga mën cee dimbalee itam ci suñu kàttanu borom subhanahu wa taala nga koy defe kon buur boobu lañu war a xam waaye moom lañu war a gëm itam doomu aadama bi dafa ñëw daldi di ne yonent bi dama forfee aw yax yax bi kenn xamul kañ la fa nekkoon est-ce que sa yàlla ji mën na koo dundalaat daldi koy sànni yax bi ci kanam sànni yax bi ci kanamam daal di dina ko man yuxyil izama wa hiya suñu suñu yonent bi daal ne ko yuxyiha dina ko dundalaat ki nga xam ne moo ko bindal moo ko bindoon awwala marratin ca ba nga xamante ni nii nekkagul nii moo ko sosoon bind ko kooku moom moo koy dundalaat ak wax dëgg waaye ku xool ci mbay mi xam ne yàllaay dundal lu dee yàlla subhanahu wa mooy buur bi nga xam ne dafay xaar ba nga xam ne noor jot na lépp lu nekkoon gàncax ci kaw suuf si mu rey ko mu fas yéene jaune te dafa vertoon ba mu jaune ba yàgg mu daal di lax daal di wadd ci kaw suuf si waaye mu commencé ñuul ba mu commencé ñuul yàlla daal di koy def am mboob wëlbatiku suuf si di ko wëlbati ak ngelawam muy naaw ba suuf sa dootul amati dara loo xamante ni nii day nuroog gàncax gu takkoon ci kaw suuf si daal di koy jëri lépp mu nekk mboob daal di naaw te kat lu dund la woon yàlla nee na ma daal di taw sama taw lépp loo xam ne nekkoon na gàncax di génnaat ci kaw suuf si yéen ngeen di ko gis yàlla mu ne xool leen ni may defee min asaari rahmati rabbihi ci seen ci seen kéemtaani borom wala boog ci seen tegtali borom kayfa tuxyil mawta nii nag laay dekkaleeku dee waaye ñun dañuy romb gàncax guddi ak bëccëg duñu xalaat sax ci loolu bu ñu xalaat ne gàncax giñ feroon woon daaw yàlla jëri na ko naaw na den na dootul ñëwati waaye xoola ni àdduna bi melaat xoola ni dëkk bi melaat xoola ni àll bi melaat ni mu verte waate kon yàlla moom mooy dekkil ku dee loolu dong la ci jublu ba tax mu ñuy won li nga xam ne mooy ay kéemtaanam guddi ak bëccëg suba ak ngoon ndaxam yow sax kéemtaan nga ci sa bopp bu fi nit jóge woon nit jóge fi rek am fukki at fenn daa di ñëw fekk la ni nga mel rek danaan la yow soppeeku nga ni nga meloon daaw ak ni nga mel ren rek du benn kon am na lu nekk di la dundal te loolu lay dundal bés moo la nar a rey naa xalaqnaakum wa minha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratal uxra fii ci àddina bi fii ci suuf si lañ leen lañ leen bind fiñ leen leen leen di raye ñu du ñu denc leen ci suuf si yàlla nee na fii laa leen di dekkale yowmal xiyaam bu ko defee doomu aadama jéem a xam kan lañu war a gëm naka lañ koy gëmee ak moom doole ji mu am te jëkkoo la nu ne def la nga nekk ki nga doon tey te amul benn seconde boy xalaate sa xel dem ci sa borom subhanahu wa taala lu dul nit a dee te ca biir mbir ma sax da ngay fàttewaat ni fi da ngay jëw di jëw di jëw di jëw nee naa dañuy jëw bay jëw ki dee bi maanaam suñu dëj yi tamit war nañ koo seet war nañ koo seet ni ñuy waxtaane ci dëj yi est ce que dëj sax am na ci lislaam suñu toogaay bi ñuy toog di ci fàttaliku suñu démb suñu caay-caay ga ñu defoon walla démb caay-caay ga diw defoon ba xaqataay fan nga toog ci koo xam ne dafa dee ñu suuli ko te ña koy suuli dellu seeguñ yow nga osé di wax bay ree di wax bay xàqataay yow de xalaatoo kii bësam bu njëkk ci kaw suuf bësam bu njëkk ci kaw suuf nga waroon a wax ne yàlla yàlla na nga eh, jubal aw layam yow nga fàtte lekk fa naan fa wax fa ba ba jëw fa ka nga xam ne moom lañu ñu denc tey a yaakaar ne yow it doo am bés bu mel noonu ku nekk sa bés ngay xaar kooku ñu war a gëm xam nga mënuñu ragal yàlla te gëmuñu ko ñun mënuñu topp yàlla te gëmuñu ko loo gëmul doo ko jox benn dayo bi te gëm yàlla day farata ci ki nga xamante ni nii mooy ab jullit nee naa la léegi ki nga xam ne moom dafa feddi géew daat ne man la ma neex laa gëm yàlla waxu la dara digalu la santu la xaalallaahu taala yàlla wax na moom mi nga xam ne moo tedd xaalallahu taala wa yàlla wax na moom mi nga xam ne moom moo kawe ittaqu rabbakum ragal leen seen boroom ngi ne yàlla lu tax mu ne ndax inna zalzalata saati sayun azim rëngi-rëngi bésu pénc mbir mu màgg la law matasa kullu murda atin amma ardaat وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولا waaye walakin azab Allah sabid neena na bobu da ngay gis nit ñi mbeukante di kayang kayangi jur gi joge ci all bi jaxaso nit ñi ya nga xamanteni tininyo ñoo mala mala yi joge ci all bi ñew jaxaso nit ñi neena nit ñi di kayang kayangi bu fekkoon ne da boot sa doom mën ngaa tiit ba mu wadd te yëgoo sax ne da yoroon doom joo bootoon kulli murdaatin amma ardaat lépp loo doon nàmpal di tiit ba sànni ko te doo ko yëg lépp loo doon diisal bu dee ëmb bu nekkoon ci sa biir la bu doon loo xamante ni nii da nga koo bootoon loo yore woon ci sa loxo di tiit ba wàcc ko nee na wataran naasa nga gis doomu aadama yi sukaaraa ñu mel ni dañoo màndi màndi wu ñu de walaakin bi wa maa hum bi sukaaraa màndi wu ñu de na azaballaahi gis nga mbugalum yàlla sadiidun mooy li nga xam ne moo tar rek xam nga ñun xaajum malaaka xajut ci ñun jant bu fés tiim ñu tàppe ci sunu kaw xajul ci ñun moo tax mune wala wa sukara. bisukara. demuñu sax bay waj di mandi mandi wuñu de bugalu yalla bi mom mo tar a par sa nak ñuy di fe rek di fatelo nit ñi seen borom sax yenn say dafa melni ni yërma yalla ji dañ koy forcer suñu borom subhanahu wa taala yàlla moo xam ki muy yërëm yal nañu ci boole yal na ci boole waa Sénégal ñépp yërmandeem gi waa Sénégal xaj nañ ci waaye waa Sénégal sàggan nañu de maa jiitu ci ñi sàggan ñi sàggan ñépp maay seen jiit yal nañu yàlla jéggal te baal ñun yal nañu yàlla jéggal de ñun waa senegaal gii ni ñu wóoloo pexum yàlla ah saxaaba yi defuñu woon noona de ku toll ni Omar ibnul Xattaab so waxe mu ne la du mo massa wolu pexam suñu borom subhanahu wa taala en tant que sama tanku nday jor bi duguna. waye tanku tànku moñ bi fekk seegu ko mën na kole motif na ma nangam joju defon nga ko kat ka ñu la ko non la nit di def nit dafa wara jël xelam mi diko wacce ci li nga xamanteni ni rek moy man yalla daf may bal ala kulli halin lolou dafa dafa woru dafa woru dafa woru ndax yalla dafa mbugal ku la gën mbugal ku gën ka la gën ndax tay yonent yalla lut amon na soxna waye deg nga tekk yi ko suñu borom tekk yonent yàlla nuh, yonent yàlla lut ñoom ñooñee ñépp seeni waa kër am na ci ñoo xam ne yàlla da leen a tëkku tëkku boo xamante ni mara day taali aba mi nga dafa bokk ak yonent bi ci deret ndax mok bayam jaa bokkon bay da ngaa dégg di ko awa yow yow yaay ban yow yaay kan ba ne ala kulli xaalin man ñun yàlla moom dañoo jéggal moom daal dafa mel ni yàlla la mu waxoon ñun bokkuñu ca ba tax yow ngay mel melokaan wu la neex di def la la neex ba pare tuddee sa bopp ne man ca man doomu aadama doy na war doomu aadama jaaxal na ma yenn saa nga dégg gros mots yoo xam ne yow mi ko dégg yaay tiit mais ki koy wax defu ko muy dara kan lañu war a gëm ak naka lañ koy gëme dañuy dokk doomu jullit dañuy nekk doomu jullit te ju ci ab néeg sol loo xam ne ween yaa nga ca biti mbagg yaa nga ca biti ndigg laa nga ca biti yor suñu portable di filmer suñu bopp di wane an njaay walla di filmer suñu bopp di wane leneen walla di filmer suñu bopp ne dañoo jëm ca céet la di filmer suñu bopp naan dañoo dem ca ngénte la te di ci boole naan maa jongama piir di ko sànni ci àll bi te yàlla ne woon na doomu aadama bii jigéen sol nañu na jigéen war a solo ba pare nga jël sa bopp dugal ko ci daairatul islaam dajji waxi yàlla ba mu ag xex xexal mom dafa melni dafa am aya bo xamne dafa wàcc da di koy daganal xexal dafa melni yàlla dafa wacc aya wu boo xam da ko daganal dafa melni ndax léegi kenn blametul sax ko xexal far kenn waxatu ko dara te iblis na woon wala yu xayiran na xalqallah dinaa fexe ba ñu soppi ni leen yàlla bindee ñu bind ko ci alquran doomu aadama yi di ko jàng guddi ak bëccëg waaye ku ci sa soxna gën a leer rek mu gën laa neex yow ma nga xam ne yaay kilifa ga da ngay jaaxaan rek di ko xool muy rafet rek di la romb allahu akbar boofu moom iblis moom amu fa lenn lu dul dix sur 10 la ci la fa am at na wala yu xayiran na xalqallah dinaa fexe dañu ba ni len yalla bindé dotu len neex nañu wut nenen nu bindé bindee li nga xamanteni ni mom moy sen bop da nañu wut ay xef da nañu wut ay yeneeni we yo xamanteni ni nii we sax julli da ko warona a ndax yeufi seytaane la seytaane la ay weyam guddoon waaye lepp lo lo xamante ni bëgg nañu suñu doom yi di def rek dañuy bari luñ koy wone da bari luñ koy def bari luñ koy wone diko wone diko di ba suñu doom yi ñëmé ko ba bu yàggee dañuy defe du dara du dara du dara weyi nga jël tek ko ci say we wut ay we dong bu la jaralee nga nga ngay ngay sànq ngay sànq li nga xam ne moom mooy waxtu yàlla yi ba pare boole sa bopp ci jullit ñi ay we kese tax nga dajji wax yàlla daal di ko cay boo ko ci defee du weyi sax heure bu jot nga dindi ko boo jullee ba pare monte ko ci doo ko def kon benn we tax na nga dajji waxi yàlla teg ko nele grefa sax man manes na ne xeyna dama koy tek ci sama bop bo suma ko tege sama bop xeyna bu waxtu julli ba jotee man taxañ tek na le boog daldi muru daldi julli boog ndax sax ndax sax boobu julli mom bo pare daldi koy keppo wat gison na gone gu ko def de gone gaf de sama ko tegoon ci kàccoor ndekete sama xelama nax rek weru kor la de waye ba waxtu wa jotee damaa gis gone ga daa di dem jàpp ba sell futti lépp lu nekkoon ca moom rek dugal ci saak ca saak ba mu génnee ne bu <laughs> li nga xamante ni nii moom mooy julleekaay ba daa di tàllal mal fa wuy julli ma ne waaw góore kii de sama xelama naxoon ci moom xel tamit ak seytaane doy na waar mu julli ba pare ma ne ko jàpp loxo ne ko ah nii ngay def bés bu ne mu ne ma yaay ñun ni bu ñuy xëy nii lañuy def ma ne ko waaw góor yaay waaye nag yal na la yàlla xiir ci ba lépp ñun mu ne dinañ ko ba de ñu mel ne mu ñoom bu ñu leen waaree tuuti rek man man yàlla mën naa indi lu baax yenn saa yi nga gis gone goo xam ne kat maar di taali waaye bu julli jotee itam na mu meloon rek lay mele toog yàpp nee naa ñun suñu doom yépp ay jinne la ñuy nurool moo tax léegi jommeetuñu jommeetuñu jël ay xeef def ko ci sa ci say bët ah jëli baaraam lu nekk léegi dañ koo monte monte ba monte bakkan jëlu ba euh, nu mu tuddati sax ab nu mu tuddati sax ab euh, jaaro ne ko tàpp ci sa bakkan sa yaay sax dootu la xàmme am na nu ñuy sole ñoo xam ne seen yaay yi sax duñ leen xam damaa yaakaar boobu doy na waar seytaane moo ko dige woon ak boroomam daan ne wala yu xayiran na xalqallah dinaa fexe ba ñu ba ñu ba ñu dévier sa yoon wi dinaa fexe ba ñu diwu ba leer nañ dinaa fexe ba lépp loo bañ yow suñu boroom ñoom dinañ ko def yàlla mu ne ko wax nga dëgg de fala xaqu aqul yaa wax dëgg yow saytaane waaye la am la an na jahannama gis nga nag bu ñu defee noonu ba topp la yow bàyyi ma dinaa feesal dell li nga xamante nii mooy naaru jahannama de minal jinn wan wan wal ins ajmain ñoom ñépp dinaa fexe ba ñu fees yow na du dëkkandoo nga bëgg di nga ko am fexeel ba rek ñu def li nga li nga bëgg nga ànd ak ñoom waaye nag am na ñoo xamante ni nii illaa ibadallahi almuxlasin am na ñoo xam ne jaami yàlla jaami yàlla lañu yoo xamante ni nii yàlla dong la ñuy sellal ci kaw suuf du ñu topp keneen ko jub seen borom subhanahu wa taala mu mel ni iblis moomu doy na waar ndax dafa mel ni combat bi ñun moom ñoo ci taseeg jamono ja gën a yées ndax gis nga ñun suñuy ceddo sax suñuy ceddo rekk sax am na yuñ doon bañ a sol am na yoo xam ne kenn du ko gis ci ñoom ñun suñuy ceddo bu yàggutoo njaay waaye ñun jamono jii ñu tolloo yàlla nee na bés dana ñëw doomu aadama yi di dajaloo te àddina dootul am mu ne kullama daxalat ummatun la'anat uxtaha mu ne fi ñuy dajaloo kuréel gi njëkk a ñëw kuréel gi ca des bu ñu ñëwee dañu naan waaw kay yal na leen yàlla rëbb yéen ñii yéen taxoon ñu ñu dévier yoonu suñu borom subhanahu wa taala kullama daxalat ummatun laanat uxtaha xatta daaraku ba ñu dajaloon ñoom ñépp nag fiiha ca foofu kenn ku ci nekk def sa moroom ne mooy sa noon waaye fii lañu waroon a noonante mu jariñ leen bu ko defoon buñ ko defee won fi kon doomu adama dina xamni ki jariñu ma ludul daf may duggal ci musiba ndax ku tol ne borom borom bi subhanahu wa taala ak doyom ak katanam ak nim la jegee ak doyom ak katanam nim la nim la noté ak dayoom ak katanam nim la jekkoo doomu adama sànqalañ bo xamanteni ni tollu ne di la dévier ànd ak saytaane di la waxal loo xamante ni nii yow wóor na le ne sax neexut ndax waa àdduna neexut nag àdduna neexul yàggut ku fi jaay sa àddina war maam Serigne Touba jëndee ko loo xamante ni nii àllaaxira la Serigne Touba nee na perte nga nee na kenn warta jaay àddina di ko jëndee àllaaxira nee na àdduna bii ñu nekk kenn war koo jël di ko jëndee àllaaxira ga nga xam ne dafay béel ko perte ulaika hum ñooñu ya nga xamee ne xasiru anfusahum perte nañ ba perte seeni bakkan wa fi naari xaalidun ñoom nga xam ne ca kërug safaan ga la ñuy béel te la ca gën a metti mooy xaalidun dañ fay sax booba suñu boroom subhanahu wataala mu ngi amoon ay jaamam ñoo xam ne ña nga fegge woon ca ginnaaw mu di leen tagg ndax seen garaat yu yu rëy ñu am naan leen tatajaafa junubuhum anil madaji am na jaam ñoo ne ni nii seen mbagg yi du tege ci seen lal yi bu guddi jotee kenn ku ci nekk di wut mbàjj mu nooy ñii di wut matelas yu nooy ñii di wut darab yu nooy ñoom ñu jël li nga xam ne mooy seeni der daal koy daal koy lal fas yéenee jaamu seen borom Yalla neena Jafa tatajafa junubuhum anil madaje waye nyom yaduuna rabbahum dañuy wo sen borom khawfan andak ragal ko lol watam an ak andak yaakar yermande yërmandeem ñooñu nag ñoo war a yaakaar nak amna ñeneen ñoo xamne ñanga ca walla te nan rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama yalla yalla nak ñu musal ci mugalum safara ndax mbugalum safara day lu doy waar la nga gis jaamu yàlla yi ni nga xamante ni nii noonu lañu ñu wutee booba jamono am na ñoo xam ne ña nga ca diggante jigéen ña di fecc jigéen ña di fecc di leen lëng am na ci ñoo xam ne ñoom ñooy jaami yàlla yi nga xamante ni nii yàlla mu ngi leen tàllal loxo waaye ñoom ñi ngi daw si wutti seen seen borom subhanahu wa taala ñu ngi naan rabbana sami'na yàlla ñun kat dégg nañ mu naa di koo xam ne ma ngay woote yu naa ma ngay woote lil imaani ngir jëmane ci ci li nga xam ne mooy ngëm rabbana rabbana amanna ñun kat gëm nañu faxfir lana zunubana nang ñu nang ñu baal suñuy bàkkaar gis nga ñaari kuréel yi ni ñuy nga ni nga xam ne noonu la ñuy wutee ñu wutee fii te ñi ngi dund ci àddina nga bëgg ñaari kuréel yooyu bëgg a yem fële nga xam ne moom mooy àllaaxira yàlla nee na du ñu yem laa yastawil ama wal basir yàlla nee na yemalewuma leen yàlla nee na innama yaxsha allahu min ibadihi al ulama ñi nga xamne ne ñoo war a gëm yalla ci ñi nga xamne ñoy sama jaam ñi moy ñima jëm di kër kër yi bëgg ma xam ñima ma xam ñooñu ñoo ma mëna ragal ñoom ñoo xam sama dayo ñoom ñoo xam ñi nga xamanteni ni moy sama kàttan kon nak nañu jëm suñu layul kàttan te delu si waat ci suñu ciosan ciosan gi moy lan bi yonenti bi yalla di koyon dafa ne len dafa ne ko iqra jangal nanu jéem a jàng suñu kéemtalaayu kàttan lépp lu ñu mën di jàng baax na waaye bu ci dara jiitu diine ji nga xam ne mooy diiney lislaam yàlla jox ñu téere boo xam ne dane maa farat naa fil kitaabi min shay'in amul lenn loo xamante ni nii am na ba pare nekkul ci téere bii nga xam ne moom mooy téere alquranul karim kon lépp lu nuy jàng na ci jiitu xadisu yonent bi jiitu ci leneen lu ñu mën a jariñ mën nañ koo jàng ndax yàlla moom mu ñu ko yenkawele bàyyuñu ci kaw suuf moo ne naa razaqnaakum man maa leen wërsëgal min a tayibaati ci yi nga xamante ni nii moo teey ku lu lekk leen war ngeen naan wala tusrifu te bu leen yàq yàlla subhanahu wa taala di ñu waxal toujours di ñu alerter di ñu wàccee ci li nga xamne ne moy suñu waccu way di ñu wax ne atiullaha na ngeen raga na ngeen top yalla wa atiu rasul na ngeen top ki nga xamanteni ni mom la yoni ci yeen amul num ñu joxañewul lan li ñu wara gëm lan la ak kan lañu wara gëm ndax ci mom rek lañuy delu ci waat nga xamne moo ñu defal guddi gi waaye mu koy wattalee ak bëccëg bi yàlla moomu nga xam ne nee na ara ayta su fekkoon ne gis ngeen ne in ja'alallaahu yàlla defal na leen allayla guddi gi sarmadan mu mu daa di fii nekk dappetu fii ilaa yowmal qiyaamati man ilaahun ban ban ban yàlla yaatiikum moo leen di dikkee bi diyaa ci li nga xamante ni nii moom mooy bëccëg waaye su fekkoon ne def na bëccëg bi sarmadan mu nekk fi dappetu fi ilaa yawmil xiyaamati benn bëccëg rek nekk fi fan ngeen di jëlee yàlla joo xamante ni nii moom moo leen di indil guddi goo xam ne taskunuuna fii ci ngeen di mën a wiir seen mbagg yi mën a noppaliku mu ne wa min rahmatihi ci ci ci ci ci yërmandeem nag la leen defalee ngeen di am guddi di am bëccëg di mën a liggéey di mën a noppaliku bu ko defee mu wax la ne guddi gi dee ci noppalu dee ci dallu dee ci teeyal li nga xamante ni nii mooy sax xel waaye nga def ko ñetti pàcc moom guddi pàcc bi ngay nelaw pàcc bi ngay jaamu yàlla pàcc bi nga dem jàngi ko naafi la yooyu yep man nga ko am ci guddigi ndax guddigi li nga ci meuna def te dara du la déranger mom mo upp fouf ni ko meuna defé ci li nga xamanteni ni moy beccëk waye mal asaf ak ñun dañuy yendo son nabi bi choono bi lan la choono bi fan lay delluwaat ñu fanaanee nelaw yenn saay nga dugg ci kër goo xam ne dix heures jot na boroom kër ga julleegu nu ko gone yey def yàlla dafa ne woon inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquuta dama wàcce ci yéen julli waaye ma wutal ko ab dama ko wutal ay keno daaj ko Tisbar ca tisbar ja lañ koy lañ koy julli takusan ca takusan ja lañ koy julli timis amna waxtom ge amna waxtom fajar amna waxtom mono jël waxtu yalla yi tek ko ne di julli comme ni mo la nexé ba paré nga bëgg rawante ki nga xamanteni ni suñu borom subhanahu wa ta'ala ba yef yo ya joté rek dako dako jox suñu borom yalla neena bañu ma may ki bidanti waye ki téna juk la xamut na makoy def ñu war a góor waat dellu si waat xam ki ñuy gëm mooy kan mooy suñu borom subhanahu wa taala te gis nga fi mu jaar ak ñun ay atwaar yu bari la jaar ak ñun xama goo woon mu xamal la mën a goo woon mu mënal la ama goo woon xel mu roof lam xel ba pare bi mu la roofee xel da koo rocc ci keneen xelum keneen da koo rocc de daal di koy def mu nekk maladie mentale di nekk ci eh, àll bi bu bëggee lekk dem ca poubelle ba lekk nga di ko gis yow ci sa wàllu bopp ci sa gis-gis ak xel mu gàtt nga naan xoolal kii fekk yow doo xalaat ni lii ñu rocc ci moom dañ koo roof ci yow moo tax li ñu rocc ci moom ba nga mën a lekk ba desal ba xam ne sama lekk gii mi ngi commencé yàqu xaaral ma teg ko ci poubelle bi moom faalewut loolu ma nga ci beneen monde mi ngi ci beneen xaal ba moom mën naa lekk loolu doo xalaat moo tax yàlla di waxal ñi nga xam ne mooy boroom xel yi fu muy waxee boroom xel yi rek danaan leen yaa ulul albaab ubbi leen seen xel yi te xam ne nit dafa war a xelu nit tamit du nax boppam xam nga yenn yu ci bari ñun nax rek suñu bopp yenn yu ci baree baree bari dañuy nax rek suñu bopp waaye yàlla moom la mu waxoon dootul dañ yàlla nee na bind naa te xalima moo doon bindee damm naa ko la ma ne woon araam na araam na ba yowmal xiyaam la ma ne woon dagan na dagan na ba yowmal xiyaam jeex na benn kenn dootu fi ñëwati naan lii la yàlla araamaloon daganal na ko léegi wala lii la yàlla daganaloon léegi daf ko daf ko araamal amut bañ na ko ba nee na yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa kaana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi waaye wa xaatima nabi nee na doo kenn ci góor ñi doo kenn ci góor ñi nga xamante ni nii ñoo nekk ci àddina maa kaana muhammadun aba ahadun min rijalikum nekkul kenn nekkul benn bàyyi ci góor ñi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi walakin moom kat rasulullahi yàlla ko yónne ndawal yàlla la kat wa xaatimi nabiina ñi mu daan yónni ci moom la collectiré woo ñi mu daan yónni ñépp ci moom la yem daan na yónni ay nit ñi mu yónni leen bërëb sàngam ñi mu yónni leen bërëb sàngam waaye bi mu ko xasee ba yónni moom ca màkkat mu ko yónni yónnee ca màkkatal mukarrama ba àdduna jeex nee na moom dootul yónni kenn yàlla ci boppam moom moo ko wax wa xaatimi nabiina yow yaa collecteur yonent yi nga xam ne ñoom laa doon yónni yónni na fi ku ne gisuloo Moussa ak Xadir Moussa demoon naa dema dema dema dem ba waa banu Israil ne ko waa Moussa xanaa yow yaa ëpp xam-xam ci àddina mu ne ah kay adduna bii ñuy dund de maa fi ëpp xam-xam yàlla ne ko xamoo dara lépp loo xam ci sama xam-xam la jóge te tey laa la koy wan daa di koy yabal mu daje xadir daan ne ko man kat damaa bëgg a ànd ak yow nga xamal ma ci li la yàlla xamal xadir ne ko mënoo dékku sama yëf matoo ma taalibe mu ne ko aha kay lépp loo xamante ni nii rek gis naa ko ci yow dinaa ko muñ mu ne ko haa mu ne ko waaw fantalaqaa ñu daal dem àndandoo dem xataa iza rakiba fi safinati ba ñu yéeg ci bi li nga xamante ni nii mooy benn benn gaal ñoom daal dañoo daw ba ci kanam rek xadir daa di jël sémmiñ rek daa di gor li nga xamante ni ni moom mooy gaal ga commencé koo yàq mu ne ko da gor gaal gi ak teraanga jiñ ñu defal ci gaal gi yépp yow fayoo man mi ànd ak yow sax dañoo lànk ne duma fay ne ndax yow boroom xam-xam nga amoo dara loo leen di fay lu dul di xar seen gaal gi mu ko lii laa la waxoon ne ne woon naa la matoo ma mu ne ko a ah, kon nag baal ma dañoo dugg ca dëkk ba rek ñu tasee benn xale rek xale yaa ngi nekk ci biir géej gi ak di sangoo ka defi yëf rek xadir daal di napp benn xale rek daal koy xocc rek bàyyi mu deew rek mu sànni mu ne ko hee a xatalta nafsan dangay rey bakkan boo xam ne bi xayri nafsin da ngay rey bakkan boo xam ne reyul bakkan laxat ji ita sey an nukra yow nag da def nga mbir moo xam ne lislaam da koy bañ mu ne ko ne woon naa la yow mënoo àttanoo samay bagaas nga ne ko ah léegi nag de su fekkee defaat nga mbir nga xam ne mënatumaa mënuma ànd ak yow nag ñu dugg ca dëkk ba kër gu ñu dugg ne leen may leen ñu ñu naan wala ñu lekk rek ñooña bañ fa ba abaw an yu day ñu laa di lànk ne ñoom duñ leen ganale ñu daldi fekk ca ré ca dëkk booba benn miir boo xam ne an yan dafa dafa daanu fa aqaamahu ñu daal di koy yëkkati mu daal ne ko ah bu la neexoon de ñu fay ñu ci ñu loo xamante ni nii dinañ ko añee comme que ñoom dañoo bon ñoom du ñu maye lekk du ñu maye naan te miir bii boo ca fayeeku woon seeni borom xëy na buñ la ko fayee ñun ñu mën ci mu daal ne ko nag xaasa firaaqu bayni wa nag waaye nag kaay boo ñëwee ma waxal la taawilu lii nga xam ne moom mooy moom mooy faram li ma def lépp taawilu man lam tastati alayhi sabra lii nga xam ne yow munoo koo muñ kaay ma waxal la lu xew gis nga gaal gii ma bënn ki nga ñi nga xam ne ñoo ko moom ay miskin lañu yaamaluuna fil bahri dañuy yaxantu ci li nga xam ne moom mooy géej gi suñu nappé daldi di jaay daldi am lu luñu lu néna amna am na benn buur boo xamante ni mi ngi ci seen kanam yaquzuna day jël kullu safinatin bepp gal bo xamanteni ni rek bu baax la bu rafet mom da koy nangu hasban ci daan jël da koy da koy nangu dal te yeen bu ko defé dara du ko ci fekk parce que mom bour la te su fekkoon ne bàyyi naa gaal gi ba mu àgg ca buur ba buur ba bu ko nangoo ñii dootuñu dund mu naa dina ko ah lii moo ko rafet ah man kay xamewu ko woon noonu mu ne ko gis nga gune gi ma rey gone gi yéefar la te nday ji baay ji dañ koo bëgg te nday ji jullit la baay ji jullit la dama ragal nak mu mag yobale len ci kéeféer gi te benn bakkan bu dem safara mo gën ñetti bakkan yu dem safara motax ma ray ko bala mag ndax yaay ji ak baay ji continuer sen jullute mu ne ay way li ka rafet way mu ko gis nga li nga xam amal jidaru, gis nga li nga xam ne mir bi ñi ko mom ay miskin ay ay yatim lañu yo xamanteni ni seen baay bi nekkoon ci dëkk bi moo gënoon ci dëkk bi waa wa abuhuma saaliha seen baay moo gënoon ci dëkk bi mu jëloon nag li nga xam ne mooy wurusam bi daal di koy def ci suufu li nga xam ne mooy miir bi nga xam ne bu xale yi màggee ci la ñu war a mën a dund ma ñëw fekk miir bi di waaja daanu su daanoo dañuy gis li nga xam ne mooy trésor bi nga xam ne ci la def wurus wi ñu daal di koy forte xale yi màggaguñu moo tax ma ne la nga indi ndox ak ban ma daa di koy ma daa di koy miiraat mu ne ko ay waay li mu ne ko nag lii la nga xam ne mënoo ko woon a muñ man dem naa moo tax gis nga suñu borom subhanahu wa taala lu ne maye na ko maye na ko amul lu mu joxul jaamam ci kaw suuf loolu lépp ci xéewali suñu borom yi subhanahu wa taala kan moo koy xam kii nab nabi ngir jema xam boromam subhanahu wa taala te njang tamit du wess mané ko te njang pour xam suñu borom subhanahu wa taala du wess comme moko yombalé nonu ne ta'rifuni qabla an ta'buduni xam len ma dok ma jamu fa in lam taarifuni fa kayfa ta'buduni bu ngeen ma xamul nu ngeen may jamo mu melni waxtu bi nga xamanteni ni mom lañu amone ci li nga moom mooy émission bi day waaj jeex ñu sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant tamit kër gi nga xam ne ci la ñuy defee émission bi di jiital ci cant gi ki nga xam ne mooy sama doom jooju di Ibrahima waaye di sant képp ko fi xëyee wala nga fi gontoo incha allahu rabbi di leen ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal réew mi di ñaan yàlla subhanahu wa taala na fi yàlla def jàmm ñépp ñi nga xamante nii ñi ngi bëbb wutali géej gi te li nga xamante ni nii lañ fay fekk lépp mooy li nga xam ne mooy ay metit ñi ci ëpp seen bakkan di des ci géej gi ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala bu fekkee ne balaa la yal nañu ko teggi su fekkee ne yaakaar la bu tas ci suñu réew yal na yàlla delloo si yaakaar ci réew mi ba suñu doom yi ak suñu sët yi mën a toog ci réew mi su fekkee ne la ñuy wuti bitim réew moo leen gën a li nekk fii ci suñu réew mi ba tax ñuy dem yàlla suñu borom subhanahu wa taala yal na fi yàlla tuur li nga xam ne moom mooy xéewal yal na fi yàlla tuur li nga xamante ni nii mooy barke te xale yi mën cee jot yal na xale yi mën a jot ci li nga xamante ni nii mooy barke yi nga xam ne moom la yàlla def ci suuf si te Sénégal seddu ci lool bu fekkee ne tamit li nga xamante ni nii mooy séddale bi dafa demee côté yal na yàlla defaat suñu xel yi ñu delloo si waat séddale mi séddale mi jaaraat yoon ba suñu doom yi amaat yaakaar ba mën a ci suñu réew mi insha allahu rabbi aqulu xawli haza astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iri almuslimin assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu